moo tax ñu ngi koy félicité jàmbaar la trop euh, ndax mbirum Sénégal chaque jour bis bu ñëw di ñaan bis bi nga xam ne moo ko mujj ginnaaw mais di félicité it ministre bi nga xam ne moo yoroon wàllu élevage muy Aminata Mbengue Ndiaye ci taxawaay yi moom it ba mu egg si fii mais lu mu fi bàyyi woon rek ministre euh, Samba Ndiobène Ka continué na ko jàllal na ko ci taxawaay bu rafet ba def ci loo xam ne lu kawe suñ njort la ci diir bu gàtt dañuy wax ne dañuy sant ñu nit parce que tey fii indi nañ fi ay nag yoo xam ne ay races yu am solo la muy races yi nga gis yoo xam ne Brésil mooy d'origine bi ñu indi ci nag yoo xam ne yu dañ ko métissé ak nagi Sénégal yi ba am ci euh, nag yi ñu kon nag loolu am solo la indi nañ fi it ay xar yoo xam ne nag bi mu ngi tudd siir indi nañ fi ay xar yoo xam ne dañ ko métissé ak xar yi ñu xam ci Sénégal muy xar yi ñu tuddee xar yoo xam ne xar yu am solo la xar yu rëy la yoo xam ne macha allah yoo xam ne ñu ngi ko commencé di ko defar di indi nañ fi autorise muy baax président de gisal na ko boppam mais nag ci biir loolu bi nga xamee ne wër nañ mbir yi ba pare ci lañ ñu jox raaye bii nga xam ne ferme agricole Serigne Thierno Seck Sadag lañ ko jox ma doon directeur ma doon président bi jiite ko ànd ko équipe bi yëpp may féliciter équipe bi équipe la boo xam ne équipe bu am solo la parce que yombul ñu am lii dañoo dee guddi ak bëccëg sonn tàmbalee ko ci Saliou Ba mi nga xam ne presque mooy coordinateur programme bi. ak Asta Badiane ak Khadija Badiane madame Seck madame Seck Bintu Ndaw ak euh, Ibra Ndiaye. ñu leen di sant gërëm leen. di leen wax ne yoon la pour ngeen lii ma ci jublu rek pour ñu fekkee lépp mooy dama bëgg ñu xam nen na Seck ñoom ñëpp ñu ngi ci ñu ngi leen di sant gërëm leen Diop Safor. ba nga xam ne tey raaya bii ñu am dañ koy jëlaat tegaat ko ci seen loxo lii nag dama ko jëlee tegaat ko ci seen loxo tegaat ko ci loxo éleveurs yi Touba yëpp parce que bu ñu ma tànnee Touba Touba yëpp ñu tànn man ak sëñ Saliou damay sant bu baax a baax mooy sëñ Saloum sëñ Blaat loolu wane na ne liggéey nañ mais nag lii def ñuy soññi pour ñu gën a góorgóorlu gën a taxaw mais di profité rek di wax ministre sàmm Ndiobène Ka ginnaaw buñ ko félicité di ko wax nag ne ko nañu def pexe ba. Euh, ñu gën a jàppale ci li ñu wax euh, ripaas bi ak euh, élément bi ñu gën koo yombal mu gën a yomb ci bay ci sàmmkat yi parce que yaakaar naa bu ñu ko defee balaa yàgg bu ñu ko ci boolee balaa yàgg yàggatul rek yaakaar naa li ñuy wax jur mën na yomb li ñuy wax ginaar mën na yomb kon nag loolu moo doonoon mbir yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que tey di sant it waa Laadum yi nga xam ne samay xarit lañ di sant sëñ Saaliw di sant mboolem ñi nga xam ne indi nañ seen i bagage muy ñi indi ñax ñi indi euh, ripaas ñi indi machine yi koy def ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Ibou Kane mi nga xam ne moo nekkoon président salon bi di sant Basirou Fall mi nga xam ne moo nekkoon moom it euh, mu ci ñoom ñaar ñoo ko yoroon waaye di sant sunu directeur bi nga xam ne muy directeur élevage muy daam Sow di sant it ki nga xam ne mooy euh, Sall bi nga xam ne moo nekk inspecteur bu Mbacké jàmbaar la taxawaay bi rafet na ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf